ndeysaan Youssou Ndour moo ñu wan ginnaaw Talfa moo ñu wan kanam Talfa jàkkaarloo ñun ña ngay leewaatoo arbitre bi sifflé na seen diggante ña ngay leewaatoo Youssou Ndour doon a Talfa jël na ko Talfa jël na Youssou Ndour Youssou Ndour bañ na ah première song ba mooy na Youssou tànc na Talfa ci suuf Youssou Ndour tànc na Talfa ci suuf Youssou leen ngir yàlla lii du lamb ju ndaw mag la Youssou Ndour jàpp na jàpp bu leer Talfa ngay bañ. Youssou Ndour da ngay manœuvrer ku am na ngemb Youssou Ndour Talfa ku am na ngemb na ko Youssou Ndour daan na Talfa Youssou Ndour daan na Talfa Guédiawaye daan na Parcelles toppal ma toppal ma kee toppal ma liiru jaan waay waay teew te am na nag sax jëlul sa nit yàlla maa ngi la koy ñeent. waaw balaa loolu yëpp yëpp ci làmb ji ñëw lan moo tax fa daara ngeen amoon ci pérex sow li lu tax gis ngeen kon noonu dafa yàq dafa yàq constaté wu ci làmb ji nag bisu liggéey bisu bu sa foofu. yéex ma concentré wu ci lamb ji. est-ce que toppul public bi ba. non doo ko la ma wax. lamb da ngay concentré wu ci bis bi. boo ko dugg ci lamb ji. waaw. loolu la dara mayul woon ci biti. bu toog am ci biir lamb ji lu ko sàppal sa réew. fas ko yéene daan. dana moo njëkk a pare. concentré xam ne lamb ko nekk ci lamb ji nekk ci lamb ji. foofu la ñàkk a lamb ngeen koy a góorgóorlu rek wala de français nga xam ne am na cër ci làmb a ko seere rek a rek mooy fekk loolu a ko yàlla mu daal parce que dafa la ci buntu làmb doom ba doom ko mën a gën ci làmb mu mën a perte dégg na wax deux fois ñu fi tëj ñëpp daan na leen. kon Franc daan ko na ko teg ci yoon rek respecté ko dañ ko jàppee ne màggam laa bëree man xale la na ko teg ba lu ko yàlla may mu gën a dégg. Fabis Fabis a ngi Fabis lu muy kaas Fabis bouteille bi la bëggoon a bañ. waaye Franc dugg na ci géew bi maam Ali Franc ma ngi def ay mouvement am li ñu jaaxal bombardier dafa loo ah mais benn defet rek bu leen jaxasoo xanaa ay sportif quand même waaw parce que ay sportif lañ Talfa ngi noonu Talfa dafa mel ni daa gaañu Talfa dafa mel ni daa noonu dafa mel ni daa gaañu maam Talfa il s'est blessé à l'épaule Mama Ali. Talfa ngi noonu Mama Ali Talfa daa blessé Mama Ali Talfa dafa gaañu li daan bu yombee kay jaaxaloon na ma man Mama Ali Papa nañ xool état de santé kay oh, lamba ngi nii tey suba ñu daan la lamba ngi nii tey da ngay daan suba ñu daan la Kaiwan. gaañu dafa gaañu il s'est blessé si épaule bi la blessé. dama doon dëgg laay dégg nga waaw bu ma def dara nag. nan dem ñibbi. dal fa loxo bi sumeeku. ndeysaan ma ngi leen di nax guerrier moom ma ngi garder ak cent ba tey sportif la Talfa sportif la vrai sportif la. sportif la. sportif sportif la koy def mais loxo bi dafa mel ni dafa sumeeku. bi muy génnee loxo bi nag oh là là nee na loolu tax waaye ma ngi sëbal nii deux semaines champion yee koy defal lu gën si yow la lu gën la la wala la la ma dafa lay pol dafa dafa lu dara raani kare wala wala la borom baax na noonu la demee nag dafa raat rek nee na lii lu dara ma ngi defal gars yi nee na lii lu dara waa moo yay nag am na ba pare ndeysaan li am na ba pare. jàmbaar nga dama doon bëre dama di daan ñuy kontaan eh dama ko lu am doon bëre di daan ma ngi leen di ndeysaan dafa gaañu kay Talfa dafa gaañu ma leen di yëkkati ndeysaan benn loxo la nar a yëkkatee ndax daa blessé kenn di signaler quoi mais yàlla ndam ji yàlla yàlla ko yàlla am ay yeneen ndam pour jaamu yàlla rek may ma sama bopp soo may sama bopp du ma ñàkk ay jàmbaar laay àndal ñàkkiwuma nag mais xam naa ñu ma àndal man dama leen di teg coono ak ñu ma bëgg sa bàyyi mais xam naa ne tey man ma xasee ba jàpp mooy génn wax dëgg sama waajur quoi di gisoo nag dara nag mais sëñ Fallou. amul mu wax nee na ku may bu doon may boppam na jaamu yàlla la rek daa wuti woon daanu waaye maam Ali blessure am bi waroon na cee wax de lu xew. général Papis Papis la ko wax. damaa kontaan. kontaan nga kontaan Papis. ah kontaan nga kontaan. da koy yee. da koy yee da koy yee. ah lamb ji da koy yee da koy def mbër. dafa ji da koy def mbër da koy yee. ndax téléphone dafa dafa dafa mun ñëpp. macha allah bëgguma woon mu daanu. lu may ni mbër ci lamb mu daanu gën a bëriwul de. waaw bu ñu gis ko dafa jafe de. man may ni mbër ngeen ko mu daanu fii. dafa teew bëriwul. waaye nee naa leen Youssou Ndour kon yaram dinaa ñaaw waaye bëri bi mu na loolu te bëri koo maa ngi koy wallaahi. mais ban erreur du du du ah looloo looloo yoon ci lamb da ngaa gaañu lamb ak coono di gaañu di ko bëre du yoon léegi moo la benn affaire ah? njambaar daa am fu voilà loolu li ma mën waa parcelle. ma dara lii xamu ma dara baal ma laa Papis ñu yeggalee Papis ah, li ma doon wax sànq ma ne ban erreur la def bu mu waru woon def. donc aduna boo ndee kese yow sa lamb du mbër yëpp la ñuy profité dafa am foo xamante ne ñii da leen saax saaxee na kese si ñoom ragal am yoo ñoo xamante ne da nga ñëw téye kii lu mu daan cee mbër kii daanagu ko ñoom ci ay combat kii amagu daa war a ñëw téye te lamb jëm la koy mais Talfa lu euh, mu nekkee di ci làmb mënul tegu ko jërëjëf lay daw victoire yi bëri na musul daanu mbooloo gi bëri na succès bi bëri na. mais dafa mel dafa bëri waale ak public bi trop. yéex a concentré mais loolu lay ci lu mel ni ci làmb moo ko yóbbaale mooy bayre bi bëri na mu def musul daanu boo ko defee sa bopp rek. da nga na sa bopp même bëri la ñu saax saaxee mais nag jël bu ñëwee mënoo dara waaye gis nga kuy bëre boo gaañu boo yëkkatee mënuñ la arrière saako yi. foofu dafa def erreur bu loolu di yoon ak nu mu méttee boo ñu teraasee rek musiba am dina ma benn affaire ci làmb mbër gis ci biir làmb action sa loxo simeeku wala tànk genou wala cheville di nga gën a jokk de. di nga gën a jokk. ah gaal ak mooy faral di def yooyu yàlla du ah kon daal mën nañ xaar Talfa yeneen ndam. man maa doo ah kañ. loolu ko ñaan ñu ñëpp. waaye waxatuma Talfa lamb laa lay wax. d'accord waxatuma Talfa. lamb boo ko see lamb ay rox yu sumee ko ci mbër wala genou bàyyi ko xel dañ koo jékku. dañ ko fañul day bugg ñu rëbb